yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi mbokk yi jiitu fi teew yëpp mbokki taalibe yëpp di am mbégte bu baax ci teew ñi teew si fii ci jumaay Tuubaa ji ñëw fi ngir fekke si tëj tëb jataay yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ñoo ko def fii fii jumaa ji doon am solo ji jataay yoo xam ne jataay yu weeru koor la yoo xam ne jullit yëpp ñoo ci jariñoo ba weer teroo ba ni ñu koy teewlu ci ci télé yi fi mu doon nekk di ko seetaan ñenn ay Maodo xaat mu tanaw wet gu ne waxtaan nañ ci yoo xam ne lépp njariñu jullit yëpp la njariñu tër bi ñu boole ci nag nit ñi nga xam ne bokk yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi di ñëw ak ak ñu néew doole ñëpp waxtu jot dogee fii ci barab bi ci ci jàkkee yi ñu teral leen ci ay berne teral leen ci ay ndogu te Yonent bi sallallahu alayhi wax ne képp koo xam ne dogal nga kuy woor suñu borom dana jege say bakkaar yëpp kon nag loolu rek dana sëkk ci seen liggéey waaye ñu bari rek jataay yi nga xam ne mooy jataay islam di ci waxtaan ci diine di ci waxtaan ci tari bi di di nit ñi di ci tont ay laaj yoo xam ne laaj yi diine yu soxal nit ñi ay borom xam toog di ko tonti di ko leeral mi def yi kon nag ngi ciy ndokkeel waa Moukhaddamatoul Khidma bu baax wax ci seen jëf ji di jëf ju ju rafet ñu màgg ci yoon yi bokk na ci liggéey yi ëpp solo ci weeru koor ñu ngi ci toppal baax di leen sant bu baax di leen gërëm ñaan yàlla ñu yàgg ko taxawee yàgg ko fekke te liggéey bi ci liggéey yëpp ngir yàlla ak Serigne Touba Serigne Touba nangu leen ko sunu borom nangu leen jëf jooje làqal leen ko yëg yàlla ñu ngi lokkeel ba mu xadoon ñëpp di leen gërëm di ànd ak ñoom ci liggéey bi te di ko rafetlu asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu yaa xayra dayfin ataa ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi